harfu alif jahwi harfu dal fahaji. fa haji kunin tamle zamaniya dal boji waaw am si bismillahir rahim baay di tagg yonent ci xar bu daal bu ah, ne mu indi ci kaafiya def ci kasin zamaniya talkul wajhi mukaddari aruhu ahdu daiman dan ukam madal zamaniya sama jamono maanaam sama dund yëpp man Talkul Wajhi ku yaatu ci kanam la du nekk ku ñëkk ngir ñëkku jamono déedéet Talkul ma nekk ku ku nëx ku dundam nëx muqaddari du ma nekk ku nëx ku am jafe-jafe ndax mu ne sama aajo wékk naa ko yonte bi lu mu tax sama kanam mu ngi ubbeeku nekkuma kuy dundam di ñàkk di nax aruuhu maa ngi di gontu maa ngi dem ak dikk mooy aruuhu wa ahdu maa ngi xëy di gontu mooy maa ngi dem di dikk rek daa iman faw lan ukam mada nekk ku amee njàkkara ku njàkkare lan ukam mada nekk ku njàkkareel waxaa di sa buha dima xëy subaya inda afdali mursalin jëm ci ngën ji ñi ñu yónni oman bi rasulillahi lam yax sa jalmada loolu dafa am lu mu fa xasaf mooy waman bi rasulillahi yatawakkal wala yal ji'u wala yal ja waaw maanaam ku wéeru ci yonent bi loolu ci waman bi rasulillahi képp ku wéeru ci yonent bi kooku de lan yaxsa dootul ragal jalmada ak dëgër ndëgër ndëgër ndëgër yi jamono jafe-jafe jamono jalmat ci arab mooy lu dëgër rek même góor bu dëgër sa arab na tuddee jalmat baat bi ñëw na ci bali calma daa tuma ragal ak dëgër dëgër dëgëru jamono waaw mu amri yi tawalla méngoo na rasulullahi yonente yàlla ba amri samay mbër samay mbir lam yazal yusaiduni dahri fasirtu mumajjada yonente bee méngoo samay mbir falam yeesal dañul yu saa Dima ni di ma jàppale di ma fu ma ci sama jamono yende baangi sama wet ba seer fu ma nek mu majjada ku ñu teddal ma mujjé nek ku tedd waaw waaye dundum yépp nee na sonul fen nee na sax eh, buy tukki weeru koor tu dagga woram ndax eh, tukki ñu buñ la né daggal fan yoy pour metti tukki bi ndax fi ngay jëm ओडुगे दिख भावने वाला वाला वाहन दो मोने वाणी जुली दो मोने डग बाई दे फ्लोर ना फोम ना फोम डेम रे डेमेल ने मुंग चिकेर रोहन उसे आई भाई फिर डेम डेमेल ने मुंग चिकेर रे वो ने के चिकेर सुर गए जो कोई जापले सोर ने या जब बोट बाग ने फोम डेम नॉन लेमेल अमुल फोम डेम सोम अमुल ने डेम रे डेमेल ने मुंग चिकेर नुंग डेफल लूने लूने लूने tukkeem ni muy bëri yëpp yëpp ci àdduna bi nee na du wàññi julli du kii du dagg woram fekkee tombe naa ko war lay junj nii fasatu bu majjada wa inna ti a al Moustapha ay no kimiya naka yitteewoo yonente bi yonente bi yitteewoo yitteewoo lan yow ay no ama ne loolu mooy jëmm kimiya di kimiya ama ceer la am na ñaanu kimia ñu ne am nañu ko yàlla jagleel ci góor yàlla yi am na marché boo xam ne kimia boo xam ne moom la ñuy liggéeyee ay xaalis ak yooyu noonu mu ne kimia day soppi waaw nga fekk përëm def ko kimia mu nekk woor woor am na mu ne eh, yittewoo yonent bi bu yittewoo say mbir xamal ne am nga jëmmu kimia de ndax fakat saara asban ma umil hin taawada waaw ndax jëmmam ak ñaanam tufleem loxo ya lu mu lar rek day soppeeku lu mu laal rek loolu day barkeel loolu moo tax boo yittewoo say mbir man mu kimiya ndox mu xam ne bu saf xorom la sax mujj na nekk ndox mu lewet bu ñu mën a naan waaw ndax kat saara mujj a nekk asban di ndox mu ne as bu maawul as bu ci arab mooy ndox mu lewet bu naan mooy li tubaab di wax lu potable mooy maawul az ndox mi mujj na nekk ndox mu lewet neex lool neex a naan mooy lan moo mujjee nekkee noona maa u milhin ndox boo xam ne bu xoroma la ndox mu am xorom ndoxu waa Fatick yee jëm kaw la te awada nga xam ne miinoon na nekk ndox mu saf saf xob xorom ndox mu nakkari mu tufli ko rek mujjee nekk ndox mu lewet doom ba nit yi di ko naan mu continue ci noona wala na ba'irun kana sa'ban wa at nakhilun bi amin biruhu sara musbida wala na mujina noy ba'irun gelem bo xam gelem bo dafa fogn bo xamne da fognon yeb natil nagn ko ci sira day jundju rek gelem bo dangagn bo fogn mujina nekkal le da di bouf gelem bo xamne nekkon sa'ban bu dangagn bu mune ne <clears throat> jënd bu ko laalee mujj na nekk gilim bu lewet bu daal di wa ay naat mu ne ñor na sax taatu ya. bi amin ci benn at jëmbat am na ñuy nettali si ci siira nawente dafa jëmbat tàndarma ya mu daal di jóg naan buuf buuf buuf buuf buuf daal di jóg daal di ca bés ba mën na wante daf koo jëmbat ren déwén mu meññ xam nga loolu kenn mënu am ci tàndarma tàndarma ak euh, ay roñ yi roñ yi ñoom xaw yem day am ati at di doog commencé meññ jëmbat ko ren mu daal di gis ne ni mooy màggee ak yeneen ma yi bokkul mu raw leen da boo ko gisee nga xam ne nga yaakaar ne tàndarma yi am na fukki at ak juróom <coughs> déwén <coughs> at ma del si tàndarma yëpp meññ loolu mu ko defee woon ci boo dem ci sita ci Salman waaw kay euh, boromam ñuy waxaale pour jënd sama nu goree muy teg ay conditions yu bari bari am dafa ma defal ay or nangam ak euh, di ma nga jëmbat fii centrement toolu ma nangam nangam <coughs> mu ne yahut yi ko ñoom moomoon loolu lañu ay condition yu bëri la ñu yu koy Abu Bakrin di jënd pour moom ko pour ñu moom ci moom ko moom euh, Salman Farisi waaw <coughs> si la yonent bi jël damitu or ne gaay pesé peese ñuy pesé ñom ñuy pesé pesé pesé ba am kilo yi ñu joon yépp ci damin or bobu mu jëmbat tàndarma ba tàndarma ya tàndarma ya daal di gaaw daal di mag at ma ñëwaat ñu meññ yépp di di di di di watat ci suuf moy wa ayna nakhilun bi amin biiruhu amna rabbi arab yu bind biir am na yu bind biir waaw ya bi leen jox ko boobu beneen kese la ciy jublu biiruhu saara mus bida euh, teen ba ngaccoon bi mu ca tuflee saara mujjee da nekk mus bida di fuur maanaam ndox maa ngay génn ci biti mu ngay mel ne luy fuur mus bida hmm. seen ba mujjee na mel ne luy fuur di génn ci biti hmm. waaw mu ne wa ataka waaye di mu ngi tagg yonent wa ataka salmaanu bi shawki habibina wa utika la wa utika salmaanu gisoo la kasi ba muy junj noonu mu ngi jóoga junj kañu koy kañu taxoon ñuy wax def loolu yëpp waaw tàndarma ya gaaw a màgg ak or ba wa utika salmaanu bi shawki habibina wala tatanaha law malatuwul mujallada وأؤتك goralees na salmaanu salmaan farisi lan moo tax ñu goreel ko bi shawki habibi naa ngir soppa suñu yonente rek moo tax ñu joreel ko ndax dafa déggoon turam salmaan ñu ne kii la dafa jàngoon téere làbbe ya wante nag ba ma doon jàmm la woon dafa doon witti tool yi ci tool taatu tàndarma yeeg di di witti di liggéey ci tool tàndarma yeeg di sàmm gilim waaw mu ngi ko doon wër mu ne ba muy gitaatu tàndarma ba di witti dégg ay sangam ci suuf di waxtaan naan dégg nga li ñu dégg ak am na ñu ne am na yonent bu feeñ màkk mu ngi wax nangam nangam ñu ne Salman foofu la waddee ñëw ci suuf tël ñëw ci gars yi leen laaj loo leen di wax ñu daal di ko gëdd yow demal ci sa liggéey ngay déglu ay waxtaan mu mag ay kilifa waaw mu noonu la demee <coughs> noonu la mujjee ba noonu lañ ko jëndee <coughs> ak alal ya gars yi laajoon yëpp ñu jox leen mu ne wala tatanaaha du jeex de kiimtaan ak mujisaat yi feeñ ca yonte ba lay wax naan du jeex law malatu li ma la ci wax nii bu ma ci feesaloon al mu jël daa ay volume ay volume u téere ma bindal la ci kiimtaan yonente bi du jeex waaw li analyse yi ndax lu tax du jeex li nga xam ne lil anbiya min xawaarik bii naalaha al arsaalu xayran muhashada ndax kiimtaan yi feeñ ci yonente la ko tàmbalee aadam ba ci eesa ya ca feeñ ci yonente yooyu yëpp ci ay xar baax mooy analyse lil anbiya min xawaarika lii ñeel yonente yooyu ci ay xar baax yëpp bii ci yonente bi naalaha lañ ko amee la ko amee ñan al arsaalu yonente yooyu xar yooyu ñuy wax yëpp yatu Moussa yeeg eesa na mu daan dékkeel gilimu saalih ba kéemtaan xar baax yi ci na lool yëpp ci moom lañ ko amee boo naree lim yëpp ak ya ci yonente bi doo ko mën a jeexal <clears throat> ci la ko amee al arsaalu yooyu la yonente xayran mu nekk ay yiw ay yób ay xéewal muhashada yu bari bëri bëri bëri muhashada mooy xéewal yu ñu dajale muhashada mooy lu ñu dajale mais mu ngi ci yu bari bëri kazaka karamatun li ahli فمنه أنيلوا ما أنيلوا ليهمدا كذاك نكي نول له كرامات كراماي nga xam ne feeñ na li ahli wilaya ñeel ñooñ wilaya wala yi feeñ ci ginnaaw yonent bi seen karamaat yi kenn xamul nu mu toll boo demee ci jaam karamaatil awliya ci na xën yi bind ko ak xilyatul xilyatul awliya téere bu mag la Ilia ak téere bu mag ay volume yu bëri bëri bëri di ci wax ay kéemtaan yi yàlla feeñal ci gaa yonent bi ci ginnaawam ba jot ni tey di nga yéemu ci yàlla mooy yooyu karamaat yooyu yàlla may wulu yàlla yooyu yëpp bii naa la xaa moom ci moom lañ ko amee fa minhu ci moom la jógee karamaat yooyu yëpp <coughs> ci boobu la leen may maa li nga xam ne unilu ma ne mayees na leen ko li yuhmada ngir ñu sant ko moom yonente yonente yi ko jiitu ak wali yëpp mu ngi leen mayee ci moom unilu maa unilu boobu na ko waaye boobu woy ko fii waaye si alhaji Malick mi doon wax dayil idnaa ba dayil idnaa ba kul kulun baraya uniloo maa uniloo bil mu biini ci noonu ya Maodo dayil idnaa ba bàyyi la ëppal de bul wax ne moom yàlla la wala doomu yàlla kul nga wax kulul baraaya mbooleem mbindeef yi unilu mayees na leen maa unilu la leen yàlla may bil mu bii ni ci yonente bi la leen yàlla may loolu mooy unilu maa unilu bii <coughs> ayaa barru mu ngi woy yàlla mu ngi oo yàlla nag yaakaar fii yooyu turu yàlla la di jaahi na bii naa mu ngi ñaan léegi nag ci dara darajay sunu yonente boobu Ya baru yow ya ku bax ki di tas zug yal na nga wërsegalé ubaydan say wala asas jambi bi jaam yëpp la ci djublu nak ma li nga xam ne yaroomu moom lay sakku yal na ko ko wa tursida te nga djubal ko di tak fi ya anna waqfina dahr naa jami ashururin kat kadaida wa aida. li tak fi yal na nga fegal anna ci ñoom wax fi naa yal na nga ñu fegal dëxër diiru jamono seydi yow sunu sang yow yàlla yal na nga ñu fegal jamee ashururin mboole mok ay parce que day nga xam ne dogal nga ko ba pare yal na nga ko fegal sa ay yi nga dogal yëpp yal nañ ko fegal wa ay te nga dëgëral ñu wa mudda sifaati min sifaatika sarmada wa kammil irfaani wa ilmi wa saddida wa dayal na nga teub sifati samay melokan min sifati ci say melokan yal na nga jël ci say melokan teub mako ko sarmada diwu jamono waaw melokaan yàlla nek ci mbindeef fi jombul de mo ci lañu nek de gaay yi gaaw wedd dañu ñak deg rek yalla wit na ci melokaanam wit na ci turum wit na ci jëmmam ko ken do wax ñu ah li ngay wax lolu melokan yàlla la mbindeef moom yoyu may yalla rek ko am ñoom dañu gatte hel ñoo xamul ne seen ñu ngi nekkee sax ci melokaanu yàlla dañoo xamul rek boo nekkee yaa ngi nekkee ci melokaanu yàlla al wujjóot wujjóot melokaanu kan la nekk melokaanu kan la ñoom wujjóot waajibul wujjóot waaw lu tax ñu nekk nag nekk melokaanu yàlla la léegi xam xam ise du melokaanu yàlla huwal alimu huwa samiu huwal basiru huwal xayu yooyu du melokaanu yàlla Hmm? wal waajidu mooy moom rek mooy aji nekk moom rek mooy aji dund xay yu kooku du melokaanu yàlla waaye sa nekk fii di dund di hmm? si nekk ñu di gis yéen gisoo leen seen téere yi gis du melokaanu yàlla wa huwal kalimu yàlla mooy wax mutakallim waaye ñu nekk fii di wax wax du melokaanu yàlla huwa samiu mbaa déggoo leen ni may li may wax déggoo leen ko nekkoo leen di ko dégg kon compoo leen ci melokaanu yàlla noo leen def ba dégg rajo yeeg télé yeeg yooyu bu ñu lay oo téléphone nga taf sa nopp di déglu dégg du melokaanu yàlla ah dund du melokaanu yàlla huwal xayyu dégg nekk xam bay defar avion melokaanu yàlla la kon nga ne lu ñu wax nga ne melokaanu yàlla la mu tax bàyyi ñaan fii yàlla nga ma tëbb ma tëbb sama melokaan ci sa melokaan bu mën a nekk la ci melokaanu yàlla la ñu nekkee ci melokaanu yàlla la ñuy gisee ci la ñuy dégg ci la ñuy dund hmm? ci la ñuy wax yàlla daf ñuy compal ci melokaan yooyu yëpp melokaanam la wéet na ci bokk ko kenn loolu taxul ñu nekk yàlla déedéet kon leer na weddi ak ñàkk dégg bokkul weddi weddi balaa ngay weddi weddi warul warul warul warul lay laa takk fu maa laysa maa laysa laka loo xamul daal mandu sa rek yàlla ne bul toppoo bul di lu ñitu loo xamul de bu ko lu ñitu loo xamul bàyyil hmm? wa mudd sifaati min sifaatika lii bu ko gars yi jàngee day naan ah melokaanu yàlla ngay naan yàlla na la ci yàlla tëb ah kii kooku yëf kii yëfar la kii moom nañ ko rey kii moom nañ ko rey hmm? Hmm? sarmada faw yang nga ma tëbb ci sama lokan faw wa kamil yalla nga tal li irfani sama xam wa ilmi irfan ak ilmu yeb xamam lay firi bokul wa sadida yalla nga jubal wa tubsiruni yalla nga ma won wal muntamiina ak ni askano li hisbina sama kurel yeb manam ñi may topp sama ooti bi yeb yalla nga ñu won mana hijja hakil hakki diggi yoru diggi diggi dinañ ko wax ñu top ko deureun mu abada sunu diru jamono bu ñu saxal ba dappet mooy mu abada wa tahdiyana yalla nga ñu gindal na shadi yonok ñub nga gindi ñu ci ay matan nga def ñu ci ay njit li ahli tuka ñel moy ragal waj alna lil muttaqina imama loolu lay jiddu fu wa ay matan li ahli tuka wal ñel ñooñ ragal yalla wal fawsi ak ñooñ texe nga def ñu ci ay njiit dundal ñu nekk say soldat mu jënn daa yoo tàggat nga def ñu say soldat yoo xam ne yàlla ñu tàggat salaatuma taslima laa man samat bii julleeg sëlmal yal na nga nekk ci ki nga xam ne samat bii ci moom la kawee jamiul wara mboolem mbindeef yi ki nga xam ne ci moom la kawee mboolem mbindeef yi yal na sa julli sël ak sëlmal nekk ci moom wa sax bi ak sahaba man ala ak ñooña ñooñam moy kan ahmada yooyu teel a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam xoolal xasida boobu yéen ngeen ngeen a mën di dox